doore bi moom du yoon mais dóore pour lan dóore bi dafa metti di jàpp nit di ko dóor dóor dóor dóor ba kañ loo xamul kañ lay jeex ne jàpp suñuy suñuy nawle di ko dóor dañ bàyyi dóore bi ñu bàyyi dóore bi duñ waxtaane nit ñëpp toog di ñu toog seen kër mais ku dëgër bopp nga heure bu ñu la wax nga bañ bañ la fekk sa kër lu la su fekk yow yaa xam yow yaay propre yow yaay jël sa propre responsabilité ah donc ñun ñëpp nañ ko respecté appliqué ko loolu laa gis man état bi bu bu président bi waxee ne couvre-feu am na ñun ñëpp nañ ko appliquer ñun ñëpp ñun ñëpp ay doomu citoyen citoyen lañu ñu respecté ko parce que ñiy taxawaalu ci mbedd bi gënuñu ñiy dugg seen kër di toog parce que bu ñu jëlee ndogal boobu pour ñun ñëpp ñu wër la ak suñu keraange euh, dëkk bi mun a développé wu. parce que fu mu nekk dëkk bi lépp taxaw na ndax feebar donc bu feebar amee ñu wax loolu ñëpp nañ ko appliquer. Euh, damay gis ni euh, ñun Sénégal dëgër bopp moo ñu yàq dëgër bopp ak manque d'éducation parce que je pense que ku ci nekk bu yaroon sa doom ci biir kër ga après bu doom bi génnee ci mbedd mi bu ñu ko joxee ay directives dina ko appliquer li ñu def man ci d'une part dama cee ànd parce que xale yi ñoo yarootul léegi yarootuñu amuñu benn éducation bi